am lu ma naqari trop di am naqar gu rëy rëy rëy ci lii nga xamante ne moo xew tey lamb Sénégal fu mu war a jógee xoolal ma ni nit ñi fi ne plus de vingt cinq mille personnes nekk ci lamb ji di xaar ñaari mbër pendant deux ans ñu ñëw tey lii am met na ku ne après nag dogal yàlla yàllaa ko def yàlla ko nangam non c'est pas ça waa ji ko def dañ ko war a xam mënul ñàkk gis nañ ko kooku dañ ko war a fekk fu nekk jàpp ko dem jébbal ko yoon parce que dafa tas yaakaaru Sénégal yëpp ku nekk mën na comprendre jam nañ supporter bi jam nañ ba tax mais mbër buy bëree war a sëgg ci làmb ji bëre ñu ñu jox ko blessure avant la combat mais naka la bëree mën a amee Papa mën na bëgg a bëree mën na bëgg a xaru pour bëree mais ay mbokkam duñ ko bàyyi mu bëree. man ah ah non jamais Papa Sow dong moo nangoo bëree moo bëgg a d' accord a mais amul kenn ku d'accord bu mu bëre. mais c'est la première fois ndax Garga Mbossé Lac Rose nii la mu tax mais. mais barki Demba Ndiaye mais à ne pas finir. léegi même bi am na yu gën a garaaw yooyu ñu war ko wax suñu stade bi des na tuuti ñu mabal ko benn yoon bu jeex. slogan de quoi. def ba def ko il faut quand même ces ces malfaiteurs là ñu jàpp leen yóbbu leen juge en flagrant deli amul kenn ku ñemee ci ñoom dem assemblée nationale di ko di ko toj maa ngi koy rajaxe kon doo ko defati même chose la assemblée nationale Sénégal ko moom yow yaa ko moom man maa ko moom Papa Sow ko moom Siteu moo ko moom. arène nationale bi même chose la képp koy yàq les biens de l' état ko détruire force de l'ordre dañ la war a jàpp yóbbu la jébbal la procureur mu àtte la bu ñu àtt ñu fi jàpp ñëpp dañu leen a ah, mais bu ñu bu ñu àttee nit pour la première fois àtte leen ne tëj nañ leen nangami at wala nangami weer. doo doo gisul koo defati. mais est-ce que papa fu làmb ne waa Fass dañuy yàq làmb. non waa Fass dañuy yàq làmb moom musul am ci kër àdduna non non Fass musuñu yàq làmb. kenn musul am ci kër man de ma carrière et toute la carrière des autres Fass musuñu dem ci làmb di ko yàq. le contraire dañoo dellu ginnaaw di discipliné ba faf gars yi yéeg suñu kaw. mais question Fass ba Guédiawaye sax ñëpp suñu doom lañu rek. ñëpp njaboot gi la. non Papa Sow bu dee dee bëree man su doon dama koy déggal maa ko non doo bëri parce que mu dem fi nga xam ne xam ga xam nga ne boo fi nekkee daf ci am moment nga bëgg a dem rencontrer sa adversaire dafa am moment nga bëgg a def sa benn show show boobu nag bu tombee euh, ak ñoo xamante ne ils sont mal intentionnés yu mel ne du ci am e ça s'est passé comme ça vraiment c'est vraiment dommage et dañ koy déplorer di wax ne lii vraiment ñëpp dañ ko war a méttiwul am liggéey bu rëy pour sensibiliser nit ñi